journaliste bi yemul foofu daat nay wax ni fii ci Sénégal ku ci mel ni Moustapha Niasse mi jiite assemblée nationale kooke nag Alpha defal na ko lu ne ci àdduna waaye tamit ku ci mel ni Mamour Diop Decroix moom tamit Alpha defal na ko lu bare bare te ñii ñëpp ak ñeneen ñoo xam ne dañoo wóor Alpha Condé maanaam wane ak ngore di bu baax baax ci teg loxo gi nga xam ne teg nañ ko loxo am na ñoo xam ne jéemuñu ci benn yoon ngir nag ñu bàyyi sax ki nga xam ne mooy Alpha Condé yéen a kaay yi nga xam ne jamono jépp ci a kaay gi ne ne jafe ba sa Bambey di dund loolee nag tax na mboolem université yi nekk ci Sénégal ñoo ngi jóg di ko tubayalu maanaam di wane seen solidarité bu ci mel ni université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak université Assane Seck ba ci université Gaston Berger université yi yëpp ñoom jóg nañ taxaw di jàppale université Alioune Diop ba ca Bambey yéen a kaay gi di las xëy dañu xibaar naan ñu violence bi nga xam ne am na ci université njiitul Pastef di di Macky Sall xëy di ñu xibaar a na ci université yi am na lenn bi ndax amical yi nga xam ne moo nekk ci université yi loole la ñu a tas ak coordination étudiants yi yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar ah, ndax jamono ji askan wi dañoo sonn ba maara détaale rawatina jëm ci wàllum location bi nga xam ne état bi waxoon ne daf koy wàññi Sénégal yi jàpp ne daar daar lay doon te ba léegi ne amul lenn loo xam ne gars daan nañ ko si jéema lu mooy loolee bërki dee moo njaay daan nañu yokk li nga xam ne mooy mburu mi yéen gi di source nee nag am na yeneen njëkk yeneen njëkk yoo xam ne yàggatul dara dina yokk ci réew mi loolee il faut askanu Sénégal xaar ko yéen gi di enquête xëy dañu xibaar ci factures yu cher yi nga xam ne am na ci lu jëm ci wàllum facture ndox yi yéen gi ne nag qualité ndox mi nga xam ne askan wi ñoo ngi koy jànkonte la loolee lépp ñu xëy fekk fa Awa Abdoul Ba bu PDS daan wax ne Karim Wade musuta sàkku li nga xëy di ñu xibaar naan ñu am na beneen trafic passeport diplomatique boo xam ne am na ci réew mi dox diggante ministère bi ñu dénk wàllum affaires étrangères ak ca présidence yéene kaay gi nee am na ñeent ñoo xam ne teg nañu leen loxo dik moo leen teg loxo journal bii di Walf Fadjri nee na réseau la boo xam ne réseau bu garaaw a diggante présidence ak ministère des affaires étrangères colonel Meïssa Sélé Ndiaye moo signalé réseau boobu ñi nga xam ne ñooy police leen loxo waaye tamit teg nañu loxo ay homme d'affaires yoo xam ne dañu leen jaayoon passeport diplomatique bi passeport bi nag ñoo koy jaayee lu ci juróom benn ci ay millions journal bi nee na am na ñoo xam ne dañoo jëfandikoo ay kilifa diine ak ay way politique daal di nag mbubboo leen ba am ay passeport diplomatique yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu association sàmm yi ñoom nag dañoo bëgg a déposer ab projet de ngaa voté loi nag a baax ñoo ngi vilipande Sénégal ba pare nag ñu jóg défendre ñi nga xam ne ñooy góor jigéen ñi Cheikh Yirim Seck ñu fekk ko ci journal bi du l'observateur daan wax ci loi boobi nag bu ñu ko voté ana yan loraange la mën a am ci Sénégal ci lu jëm ci wàllum économie yéen a kaay gii di xëy dañu xibaar naan ñu Guy Marius mi nga xam ne moom la ñu diwaanu Kédougou service régional action sociale bu Kédougou tëj na bu yàgg-yàgg maanaam fi ñuy yóbbu kii Mari Sagna ba mu tëjee ak léegi toll na si ñaari weer yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy si ñeenteelu édition salon des startup niki démb la woon waa MEDES ak cercle des jeunes entrepreneurs du MEDES ñoo ko organisé yéen kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu ministre Dame Diop mi ñu dénk wàllum xëyum ndaw ñi moo ko présidé daan nay jaajëfal nga xam ne ñooy waa MEDES si seen taxawaay ndax moom Dame Diop jàpp na ne lii def daan nay wax jamono ni mu soppar ñi ko ba tax li nga xam ne mooy économie numérique loolee si boppam moo war a doxal réew mi te nag jamono ji jot na ñu daal di soppar ñi li nga xam ne mooy jëfin yi ni ñu ko doon xalaate loolee lépp ak lu jëm ci wàllum règle du commerce yéen kaay gi ñu xëy fekk fa président ba ñuy jóp mi ji de menees moom nag daan ñaax ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi daan nay wax na salon des certes boobe nag li nga xam ne moo ko wundu bokk na si nag jàppale ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi daal leen di encadré ba ñu de mën a demal seen bopp ubbi seen entreprise bopp président ba ñuy daan nay wax ne jamono ji nag àdduna bi dafay dox il faut mbir mi ñu daal di koy méngale ak jamono accompagner ndaw ñi ngir nag ñu mën a réussir ci projet yi nga xam ne ñoo ngi koy teg bi nga xam ne moom la waxtaane ci ñeenteelu édition bi mooy révolution industrielle 4.0 bi nee na am na ñetti prix ak innovation digitale ak nag lu jëm ci wàllum créativité ak technologie yéen a di las xëy di xibaar naan ñu ci diwaanu xombal foofee nag musiba ma ba kumba moo fa am dafa a a kaay Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Cameroun ma ngay toj te jamono ji kaan bi yegg seegul yéene kaay gi ne na kuréel gi nga xam ne moo ëmb ñiy jaay seen bopp ca diwaanu Cameroun ñoom nag jamono ji yokk nañ njëg yokku nañ njëg jamono ji tamit ñoo ngi waajal bu baax a baax kaan bi nag ngir nag mën a bigal bu baax a baax supporters yi ak spectateurs yi en tout cas daal ñi nga xam ne ñooy dem Cameroun na leen leer ne jigéen ñi jaay seen bopp yokk nañ njëg loolee na leen leer yéene kaay gi dee sat xëy duñu xibaar naan ñu Aliou Cissé dina fësal nag listub gaynde yiy ñaar fukki fan ñeent